di rafetlu seen ànd RFM gannaaw bi leen nuyoo 11h jot ñu di koy yéen ci xibaar ci gàttal. kenn kay door ak tolluwaay mbas mi di coronavirus ci Sénégal yeneen nit ñàkk nañ seen bakken ci feebar bi tey jii nag am nañ lu ci téeméer nit ak juróom yu amee feebar bi 105 cas dañ ciy déglu leeral yu docteur Aloyse kàddu ministre de la santé. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk. ak juróom-ñett test yi ñu def téeméer ak juróom ñoo ci positif juróom ñeent yi di ay cas contact fukk benn yi di ay cas communautaire ñu jóge ci Wakam benn Mermoz benn Mbao benn HLM benn Grand Yoff benn Liberté 6 benn parcelle Assainies ñaar barñi benn Yëmbal benn ak benn ci Ziguinchor juróom benn fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak benn ci suñu malaat yi ñu ngi ci service réanimation yi ñaari malade ñàkk nañ seen bakken témb gaawo ñaar fukki fan ci weeru juin 2020 bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na juróomi junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti kaa yu positif ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent wër nañ si juróom-ñett fukk ak ñeent ñàkk si seen bakkan mu des junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci suñu hôpitaux yi ñu leen di traité. mi ngi ko ñoo ko déggandoo mu nekkoon. kon mu nekkoon docteur Aloyse Waly Diouf di directeur de cabinet ministre de la santé nekk tam porte parole bu ministère bi wax ci leneen wàllum njàng mi euh, waa ministère bi dénk njàng mi ki nga xam te ne mooy jawriñ dalal xel yi ci ne nag bi yoon moom euh, toppal du ci am euh, daañu tàmbaliwaat njàng mi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi maanaam alxamis pour ñi nga xam te ne ñoo war a def examen ministre bi nag lu jëm ci wàllu taw beeg yëpp bàyyi nañ ko xel la ñi laru ci teex bi di train express régional ñoom nag ne ndàmpaay yi jox dafa ndaw lool ñuy sàkk ci nguur gi mu daal di koy xoolaat euh, bëgg na tamit njiit réew mi daal di jëfee la mu leen digoon euh, ci ne nag euh, daañu leen jox ay terrain gannaaw bi ñu tojee seeni kër ci mbir moom nag RFM jëm na ci jokk ak directeur général APIX mi nga xam te ne moo yor mbir moomu waaye nag la di Mountaga Sy moom nangul addu ci moomule mbir daaneel ak tiisu ci kaw bu Sénégal ak génn ci tafsir Sakho laa tafsir Sakho nekkoon Khalif bu njaboote laa ci Eliman démb nag la daal di wàcc liggéey yi gannaaw feebar bu ko tëraloon laaj Tafsir Sakho nekkoon rakk ci euh, ndam si yàlla rahmatullahi alayhi El Hadji Ibou Sakho ñu ràññee woon ko lool moom euh, ñu jàllee njabootam midi xibaar ci àttal ci français ak